jërë ngeen jëf euh, mbokk auditeur u Afia FM yi comme ni nga ko baaxoo di def euh, màdd bu jot ñu ñëw ak yéen seen émission dialogue social ñuy jéggalu bu baax ci li nga xam ne moo di yéex a tàmbale gi tey nag dialogue social dala René Pierre Yéhoumé euh, du xam naa du dal bu njëkk buñ ko mës a dalal di fàttali rek ne moom mooy njiital mouvement pour la défense de la République moderne di responsable politiques ci Dakar Plateau Euh, tey jii nag ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne moo di actualité bi René maa ngi lay nuyu. waaw Fanja maa lay nuyu di la euh, jaajëfal si invitation bi. Mhm. Euh, tey jii ñu ngeen di fête seen 12 ans boo ma doon defal càmbar ci 12 ans daanaka dootul xale ci paysage politique bi lan nga ma ko mën a càmbaralee. waaw balaa may dugg si 12 ans bi tamit damay wax dama fi toogal tamit si collectif. des militants authentiques de l'Alliance pour la République. dinañ si ñëw loolu ci débat bi la. mais damay damay wax rek parce que ni xam ne suñu coordonnateur Thia Dia moo ko dirigé mais euh, balaa muy dugg si 12 ans APR Fane Ndiaye dafa important tey ñu rappelé wu histoire Sénégal tey am na suñu benn sénégalais bu gaañu Pape Bouba Diop na xam ne Lion la gaynde la pourquoi je le dis parce que damay indi ñaari faits yu importance histoire suñu suñu réew Pape Bouba Diop dafa doon jouer match Sénégal France. France moo colonisé Sénégal mu nekk suñu jour indépendance match boobu mu dugal bii bi yàlla ko yàlla yërëm àddina yóbbu ko yi gën a kawee tey beneen fait mooy camp de Thiaroye les tirailleurs tey yaakaar naa mooy mooy euh, soixante seize ans anniversaire de la mort de ces tirailleurs loolu loolu day wane lu important la tey day wane ñun combat bi ñu def ba léegi combat boobu moo am suñu maam yi ñoo ko defan bàyyi di bàyyi réew bi moo tax suñu nekkee ay ndaw nekk si parti politique yi ñu sant yàlla nekk si alliance pour la république hmm. d' abord damay euh, jaajëfal suñu président de la république hmm. mooy le président Macky Sall di ko souhaité joyeux anniversaire hmm. parce que ñun ay ndawam ni nekk si parti bi ànd ak moom ba mu mettee ba nga xam ne kenn gëmu ko ñoo taxaw di liggéey ak moom mais tey mu ni constaté lu xew lu bare parti bi bu njëkk ba soo xoolee APR benn famille la woon ñiy jógee ay France ñuy jógee Angleterre Danemark ñuy jógee ay Medina Yor Fula ñuy jógee ba ay Tambacounda ñuy dem ba ay dëkk yoo xam ne ay Vélingara mm. Dakar Plateau Médina un peu partout ni créé ay comité comité yooyu dafa doon dundal parti bi tey président Macky Sall yàlla may na ko ba mu nekkee si nguur nguur bi nguur bi ancien régime bi mm-hmm. mu def si sillonné tour Sénégal ba mu nekkee directeur de campagne mu nekkaat tamit candidat mu defaat tour Sénégal lu ma gën a neex si président Macky Sall lu gën a marquant lu tax ñun ndaw ñi ànd moom. Mm. mooy lu muy wax équité territoriale lu muy wax inclusion sociale mu indi ay bourses familliale mu indi ay couverture maladie universelle mu ni loo xam ne PUDC tey soo xoolee tey ku doon jaay ngooñ bu njëkk ba mënul jaay ngooñ. Mm. tey route bitumée yi def nañ lu bare bare bare te loolu tamit dem si euh, man damay nekk ales l'aise wax loolu d' abord damay euh, euh, nuyu un clin d'œil à un grand frère mu le ministre Souleymane Diop nga xam ne moo ma jëloon def ma son chef de cabinet ma gis nu mu doon liggéey liggéey bi. dinañ ñëw ci yooyu mais tey mhm. tey il faut la dire tey soo demee Domba boo mu juddoo ngént bi ngént bi neexal na trop wante tey damay yaakaar doom boobu màgg di raam mu yegg ba fii ni ne doom bi il faut ni dagg épaule bi yaakaar naa loolu moo day waar. dinañ ñëw ci li nga xam ne moo di collectif beeg yooyu mais tey jii boo doon def bilan wu 12 ans wu euh, ki nga xam ne seen parti bi est-ce que jàpp nga ne euh, parti bi nam nañ ko càmbaree léegi nii doxin ba euh, jaar na yoon wala déet est-ce que am na lu ñu war a rectifier yooyu laay waxagum en ñuy dugg ci li nga xam ne moo waral waxtaan bi ndax jàpp nga ne parti bi respecté na noom ndax ñu fàttali na bi ngeen ki ka créé ba léegi dégguñu foo leen demee congrès est-ce que réellement yéen a ngi respecté li nga xam ne mooy euh, charte yi lal parti politique. waaw soxna si loolu dem si saral di wax tuuti parce que soo disee parti politique lu koy tëral mooy démocratie dans un parti. Mm. mais malheureusement Sénégal waxuma sax APR mais parti boo munti gis amul démocratie des idées parce que loolu ñun suñu génération. moo tax je lance un appel mu ñuy bokk Y'en a marre ñu bokk PDS bokk PASTEF fi mu ti doon. Mm. ak boobu mu ti doon ñun suñu war na mun xeex tey ba démocratie am suñu parti politique yi tey soo jëlee lu mel ni APR. Mm. président moo fa nekk. après président xamoo xamoo kan la. am leen numéro 2. mosoo dégg amul numéro 2. Mm-hmm. c'est-à-dire au niveau de toutes les structures au niveau de toutes les instances amul tey mun naa jox exemple tey damay dama bëgg transport lu tax may wax transport. Mm-hmm. transport mooy développement ku wax développement mooy la vitesse mooy la modernité. Mm-hmm. tey soo jëlee ku mel ni ministre des transports. moom moo yore waru transport bi mhm. mais dans son secteur soo demee gaar boo maraîcher na dem gaar Daara Jolof mhm. ñooñu ñoo gën a organiser les partis politiques soo fa demee tey kii mooy dem Tambacounda kii mooy dem cees kii mooy dem Thiaroye mais tey le ministre su Faye mu doon coordonnateur à Saint-Louis tey soo demee coordination à Saint-Louis na dem coordination à Dakar Plateau na dem coordination à Pikine na dem coordination à Tambacounda mais ñoom transporteurs yi ñoo leen gën a organisé parce que pëccëxoo moo am foofu parce que lu waral loolu mooy animosité ak jalousie tey APR de regorge énormément de talent et de compétences il faut savoir les utiliser mais malheureusement on a tué tous les mécaniques qui nous ont portés au pouvoir tey yaakaar naa président Macky Sall ñun ñëpp su xoolee suñu kanam xamee na ma sama tur lay jaar bay nekk opposant dafa ñu doon woo te yaakaar naa am na lu bare moom dafa réeree mbir parce que le croix croix transmission boobu ñu war a relayer information au président de la République ñooñu tey c' est des gens yoo xam ne ils sont extrêmement riches ils sont en train d'humilier des valeureux militants dans certaines communes et loolu ça pose problème c'est-à-dire il faut le dire ñun tey douze ans douze ans APR la mais anniversaire mel ni dëy la parce que y a problème parce que rien ne marche te lu bon bon bon bon on na entendu que le président de la République tey aujourd'hui day def une déclaration bu njëkk ba du noonu te dans les comités communes ay commité la gars yi doon def di waxtaan tey comité bu nekk war na génn tey ñu wax mais soo demee si soo demee si commune yëpp amul leadership. ba pare problème structuration moo am ku nekk ci bu ma jëlee kaaw Grand Yoff gi ñu nekk rek ku nekk coordonnateur nga finalement comme ni nga yàq pëccëxoo moo am ci biir parti bi. tamit j'en profite aussi su ma ñëwee su ma ñëwee mel ni commune mel nii mu am fi ay xarit ku mel ni Ibrahima Pouy ku mel ni ay ñoom Cheikh Bakhoum ku mel ni ay ñoom El Karim ku mel ni ak Nourou Niang su ma nee deux personnes Nourou Niang Ibrahima Pouye ñoom ils sont dans le collectif. mais damay ñëw nuyu leen parce que soo ñëwee si dëkk na am ñoo bokk leen di nuyu. mais lu am solo rek dafa am loo xam ne soo ko seetloo si biir APR dafa doy waar ñun politique dafa nekk suñu deret c'est une passion chez nous. soo déggee luy politique mooy courage détermination engagement mais soo mais engagement boobu moo amatul APR parce que tey président Macky Sall amatul benn jeune. dafa fol ay ministre ministre yi war a ko jàppale mais ministre yooyu ñoo ko jàppalewul moo tax dafa baax tey à chaque fois mm-hmm. il faut il faut ñu def lu ñuy ay notation de évaluation de chaque commune xool tey mënoo comprendre soo xoolee ñun suñu collectif war a ñi neex si APR mm-hmm. collectif ñu yore na jël ay jeunes mais jeunes yooyu am na seen département ay minutes ñoo xam ne am na ndomba tànk ministre ñun tey suñu coo suñu coo li ñuy coo président waru ko régler président il a nommé des gens pour ñooñu mun jàppale ñeneen mais malheureusement qu'est-ce qu'ils font ils vont prendre des gens de l'opposition teg à des positions pour lan ëllëg ces gens-là vont faire profil bas pour s'enrichir moo tax aujourd'hui nous demandons. mais mais est-ce que problème bi René du euh, njiitu réew mi par exemple xëy na amatul la mu bëgg ci biir partem wala nit yi nga xam ne ñoo nekk ci parti bi waroon ko jàppale jàppale wuñ ko mu dem chercher ailleurs parce que nag. bu fekkee ne après regorge de talent te moom mënul ci gis munul détecter benn talent boo xam mën na ko dugal ci ci peut-être ci biir parti bi wala mu jox ko poste de responsabilité est-ce que benn instant du yéen yéen a ko njëkk a décevoir. dafa mel ni tey soo gisee ay xale yu ndaw di football terrain football dimanche matin dafa am ñoo xam ne c'est des c'est des détecteurs de talent. ñu ñëw terrain xool benn xale joué ni eh kii baax na pour milieu de terrain kii baax na pour défenseur kii baax na pour attaquant. mais soo ñëwee tey APR ñi xam ne tey kii moo war doon attaquant lu jël attaquant bi dem de ko mu doon gardien kii war a doon milieu terrain mu dem jouer défense loolu mu indi le problème de l'APR tey mu yaakaar naa président Macky Sall am na wàll boo xam ne lu mu waroon def si parti bi def na ko mooy jël na ay responsable ñoo ils ont échoué mais en politique y a ce qu'on appelle political appoint mais xam tey soo nekkee si parti politique bu gagné mm-hmm. ba ñu ñëwee mais le tribunal du peuple te le tribunal du peuple c'est important am na ñu fi nekk à l'époque ñoo xam ne def ni def si réew bi naka su noonu mu am ñoo xam ne ñoo wax sax jël naa ay milliards mais kenn musul dégg waxuma tribunal des instances de mais le tribunal du peuple yow mi journaliste na vous êtes mieux informé que moi est-ce que mos na dis ku jël ay milliards mu ne man maa yore ay milliards tribunal du peuple moo soxla milliards yooyu ñooñu tey il peut être par une petite minorité mais la grande majorité silencieuse mu le tribunal du peuple mënul accepter ces gens-là aujourd'hui tey tous ces gens-là qui ont été défaits ñu am un comportement tey ñoo ñëwaat au pouvoir ànd ak président liggéey moo tax ñun suñu gisee genre mel noonu ñun ndaw yi ñun lu ñu gëm c'est pas parce que ay positionnement ay poste ñu ñuy gëm la patrie importe plus que le parti. mais mais yaa ngi wax ñi nga xam ne peut-être dañoo setul ci ci wàllum koppar guñ leen fi jiiñoo nag ñooyu mais est-ce que euh, moralement yéen di ngeen am problème boobu parce que d'autant plus que y a eu quand même des directeurs généraux ak ay ministres yoo xam ne dañ leen épinglé ci ay rapport ñu jiiñ leen ne ay dañoo dañoo maanaam daal comme ni ñu ko mën a waxee dañoo euh, détourné wala boog euh, épinglé nañ leen daal ci ay rapports yoo xam ne ay milliards la yoo xam ne ba léegi kenn xamul fu mu dugg tey jii yéen boo leen di ñi nga xam ne ñoom dañ leen taqaloon ci yeneen régime yi est-ce que problème moralité dina posé foofu. cest à que président Macky Sall moo ne l'engagement politique dafa ànd ak morale éthique ñun tey tey on parle de PUDC de Prodac on parle de la CEMU mais il faut jamais oublier que y a des programmes qui sont du domaine de l'éthique et de la morale moo tax ñun les jeunesses dominer les jeunesses qui sont dans qui sont de la au, au niveau de l'APR mais les jeunesses politiques seen combat premier mooy lan mooy que aujourd'hui il faut que morale mu ñëw dans la politique le fait le fait doon na ko wax Mais malheureusement, aujourd'hui, on, est en, on est en train d'apprendre à cette nouvelle génération, pour faire de la politique, il faut mentir. Pour faire de la politique, il faut être un voleur. Aujourd'hui, un voleur... Bah, régner ses paroles. Mais lolo, mais lolo, mais lolo, yon, tay lolo. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous échappent en politique. Nous, quand on a décidé d'aller avec le président de la République, on a, on a fait de SWOT analysis, strength and weakness product. Nicole, parmi tous les candidats qu'il y avait kam mooy le candidat boo xam ne qui a le profil pour la jeunesse Macky moo correspond à suñu option ni ànd ak moom jàppale ko liggéey mais tey le tribunal populaire ñoom ñoo ñoom tey ñoo ñoo nangul tey soo demee ay Dagana mais y a y ñoo xam ne compétents patriotes qui peuvent travailler tey tey sax il le faut sax am na yenn liggéey yoo xam ne dañu la def appel appel appel appel la candidature mm. c'est important parce que réew bi tamit ça n'a pas mais mais René man peut-être j'ai un problème yéen ba tribunal euh, bu peuple bi ngeen di wax est-ce que c'est les militants authentiques yu yu pour dugg ci thème bi peut-être yu yu APR yi euh, mooy ñi nga xam ne ñoo nekkoon APR bañ avant ñu koy sanc ba niñ ko sancee te nekk ci amuñu ci dara wala vous parlez de manière général population au Sénégal bi ñan ngay waxal fi mu ne nii parce que man j'ai du mal à comprendre. xam ngay sooy def sooy def élection dafa am lu ñuy wooye ngay def si ay baromètres. dafa am lu ñuy woowee perception indicateur positif indicateur négatif. Hmm. na jël tey na jël indicateur si religion bi pourcentage ñaata la cinq pour cent la tey bilan d'un candidat c' est 31 pour cent mais lu gën important mooy indicateur positif ak négatif loolu mooy quarante cinq pour cent. Hmm. tey am na gis-gis boo xam ne askan wi ni mu koy xoolee ñooñu loolu moo doy waar. pourquoi les gens ont voté pour le président Macky Sall ba ñu demee boo xool ni ne kii gis na nu muy liggéeyee. moom la mais en 2012 ñëpp am na indicateur positif bu njëkk mooy lan il est poli te loolu dafa bokk ak suñu réew fii réew Alaaji Malick Si la fii réewu Sëñ Touba la fii réewu Baye Niass la fii réewu cardinal Thiandoum la mais mais il est poli boo xam ne dangaa jël sa adversaire politique yëpp euh, tëj ci kaso bi ñii nga traqué leen ba ñu daw génn dëkk bi après nga delluwaat ci ginnaaw toppaat jëlaat yeneen allié yi nga xam ne da ngeen doon xoolante en en chien de faïence ngeen créé waat benn allié mais est-ce que réellement Sénégal politique am nii la war a demee da ngeen ni reyante ba ñëpp xam nañ ne ay noon ngeen ngeen xëy suba nekk mburoog soow est-ce que noonu la war a demee. xam nga wax boobu sax ay waxu mburoog soow ñun taxuñu jug ñun li ñu tax a jug réew bi mënu doon mburu munu doon soow. <laughs> ah mais saa yi rek mburoog soow fi dox xam ni loolu opinion d'une personne la. mais ñun ndaw yi lu ñu risee réew tey ci noonu damay poste na ne ni wax la sa yaay moo ko liggéey sa ndey moo ko liggéey yaa fi gën. yàgg ñëpp sa sëñ moo la ñaanal loolu du réew réew na lay doxee sacerdoce la su la joxee dara liggéey da ngay travail liggéey ko tey en politique amul relation ak relation. tey mais yow nan ngay analyser loolu le fait que di euh, njiitu réew mi Macky Sall bi mu ñëwee président Macky Sall bi mu ñëwee jël ne day gouvernement sobre et vertueux jël ñi nga xam ne dañ leen takkaloon ci ay mbir ñu ñu traqué leen ñenn ñu tëj leen kaso après ñu dem ba ci biir. ñu del mu delluwaat ginnaaw jël ñi nga xam ne ay anciens peut-être ñoo xam ne sax ñoo fexe ñoo ko poussé à la sortie ñoo fexe ba ñu dàq ko wala bokk ay ennemis d'hièram lañ tey mu ñëw teg leen ci wetal yow en boo koy analyser de manière politique lan nga koy def. d'abord vous avez dit un mot vous avez dit ennemi man je dis que il faut dire adversaire et pourquoi je le dis il a été au PDS xam na xam leen des fois on de la même famille sans pour autant avoir la même nga tey Sénégal kër yi nu mel kër yi nu mel sa yaay du waxoo a magam sa sa rakk du waxoo ak magam parce que lu war a loolu kër bu njëkk ba dafa am li ñuy woowe baay mag rek mais su ñëwee si parti politique pourquoi yooyu di am parce que parti politique tant que benn nit mu ngi koy gérer loolu du mu sa deñ Sénégal moo tax il faut dire non au culte de la personnalité c'est fini depuis l'ère de Staline en 1953 tey le président Macky Sall su bëggee conforter sa majorité il, il parce que la moo tax mu bu def loolu. Mm. il a un pouvoir qui lui est conféré par la constitution de ce pays. et le pouvoir du président est énorme lorsque vous lisez la constitution de ce pays. donc loolu day tax moom am na jël sañ-sañ parce que ñu ne moom il a le droit de nommer aux emplois militaires et civils ku mu neex mais su ko defee mun na xëy ne man kii laay jël teg ko ñun am si droit wax te il peut prendre un planton mu ne da koy nommer ministre kenn mënu si dara lan la mun dans une localité comme un responsable de l'APR ou de la coalition mu ne kii le candidat pour son parti ni dem gars yi dóor ko gagné ko am au niveau de la diaspora parce que y a des gens yoo xam ne ils étaient avec nous ba ñu demee ba gis loolu ce sont les militants de l'APR qui vont sanctionner le parti et qui vont dans d'autres partis mais tey lu may wax rek su ma nee tribunal populaire c'est-à-dire que c'est la population en général dans sa globalité tey sooy dégg tey ñun que les que ñuy jaay caaf ñooy gën a ay tey soo demee si mbedd bi ngay dégg ay waxu ñoo xam ne barki dimanche dama doon ñu doon def réseau des femme de Dakar Plateau dox opération Set Setal ñu ngay def ça fait un mois ngay def avec benn daam Kanku Thiam ñoom sama yaay ñoo ko doon def mais dama doon ba booru Albert Saro benn waay dam ko wax mu dam ko laaj loo gisee dëkk bi mais dama wax loo xam ne mun naa la waatal tey ñu nekk si ñu nekk si bureau yi xamuñu ko. même soo pour la constitution américaine pour defar ko si bar restaurant la gars yi toog di waxtaan foofu la gars yi jëlee idées yi. Mm. les grandes idées sortent dans la rue. c' est dans la rue ñoom ñoo mun xam juger moo tax ñun nous faisons confiance au tribunal populaire justement nag loo tax ma la doon laaj ban façon peuple ngay waxal parce que nag euh, man c'est étonnant maa ngi doo gis quand même benn militaire militant à APR bu taxaw di wax lu ñor askan wi parce que yéen. lépp loo leen di seen discours yëpp ci président de la république la république ngeen koy accès yéen ngi érigé en bouclier surtout yéen jeunes yi du ñu dégg mukk problème mu euh, sénégalais yi am ay difficulté wala ay jafe-jafe moo xam ndox wala courant wala leen situation yi am ngeen def sorti au moins wane ne ànd ngeen ak peuple bi mais toujours yéen a ngi xool sax ñoo leen di transformer information bi ah, ba def ko loo xam ne président bi daanaka daal moom il est intouchable kenn du wax leen lu jëm ci moom sénégalais yi ñooy inventé pour la première fois ma dégg benn apériste bu bu def buy wax ne moom il parle au nom du peuple lan moo xew ci diggante bi wala boo est-ce que du da nga da nga frustré comme ni nga ko constaté moo tax nga changé fusil de d'épaule man yo yow d'abord dam lay encouragé parce que vous nous donnez l'occasion de venir si ay mel nii di waxtaan ak sénégalais yi tey loolu moo may sama parti politique may ma ko am na jeunes yoo xam ne ñoom gën a taxaw ñoo ma gën a compétent am diplôme jàng ba dee su la nee am na benn xale bu jigéen nekk na cogère AP la nekkoon cogère ba papam jënd ko këram am ay diplôme yu bare mais fu mu mujjee AP joxul liggéey ay nit ñoo dem si Diagne Fada Diagne Fada allié la moo ko utal liggéey yërëm ko jàppale ko mais loolu moo bare si parti bi ñun tey suñu frustration du frustration René Pierre du frustration une seule personne c'est-à-dire lu am on a fait un constat le constat est amer y a des gens qui sont pas courageux mais ñun yàlla mooy bindee doomu adama noonu Nelson Mandela il a fait vingt sept ans en prison ñun ragalu ni dee parce que ñuy teg lépp lépp yàlla mu ne suñ kanam tey su ma dee si kaw su ma dee suuf ñaari su ma dee suuf tey lu may ñëkk a damay dégg benn tànk mooy nit ba bay ma suulee ba pare di dem damay dégg seen tànk beneen bi mooy malaaka bi mooy jóge si kaw du ñëw ñun quand on fait de la politique on pense à ça. Parce que la religion et la politique ont toujours été ensemble. C'est à partir du 10e siècle que les gens ont voulu dissocier la politique. Mm-hmm. tey soo jëlee soo jëlee soo jëlee euh, lu mel ni euh, islam lu mel ni christianité ñu ne leen il faut suivre Jésus-Christ. Mais quand les apôtres sont venus dire à Jésus, cette femme, il faut la répudier parce que c'est une prostituée. Mais Jésus n'est celui qui n'a pas péché, mu lancer la première pierre. loolu day un message d'humilité mm. que que nit amoo droit juger ko lu am solo nit yi nga ko war a renforcer un rebelle ñun nous ne sommes pas des rebelles pourtant nous sommes catégorisés dans la comme étant des rebelles un rebelle ne viendra jamais sur plateau radio plateau télé parce que un rebelle day dem jël makki jël arme mais ñun APR c'est notre titre foncier nous aimons ce parti qui qui aime bien châtie bien tubaab moo ko wax. mais mais est-ce que yéen seen combat bi dina am ah, dina parce que gis nañ fi am ay poste de responsabilité nekk ci parti bi biñ fi jéemee rebelle wu rebelle wu plutôt dañ leen dàq dàq leen de manière peut-être xaw ma injuste lañ ko mën a wax mu fi mu ne nii ñoom kenn ay électron libre lañ bokkatuñu fenn su pour ne pas nommer ay ñoom Moustapha Diakhaté ak ñoom Cissé Lo mais euh, njiitu réew aussi dégg nañ ko mu wax ne moom li muy ku ku am loolu ku mënul accepter ay décision nga tu es libre de partir est-ce que yéen finalement bi ngeen am gain de man dama xam le président Macky Sall parce que dama yàgg waxtaan ak moom mun naa nettali benn anecdote et ça ça m'a touché mm-hmm. une fois dama nekk Londres vous avez cité le nom de Moustapha Cissé Lo mm-hmm. woo ko téléphone moom ren xam parce que président Macky Sall ma ne ko mais président gis naa la ne def cortège dem ba Kaolack policiers yi baare yoon bi na delluwaat ma ne ko président su nekk man damay forcer est-ce que xam nga per être un grand leader y a un prix à payer monsieur le président mënu ma reen loolu mooy lan ma ne ko cimetière ou prison mu reetaan mais après des années ma xoolaat ma ne le président avait raison l'histoire lui avait des raisons parce que li mu def il a fait le calcul du risque mais ñun aujourd'hui on a fait le calcul du risque on n'a plus rien à perdre dans ce parti ñooñu nekkan ay am ministre nekk ay directeurs yi teg tegi seen ndomba tànk bokkuñu ak ñun parcours Nous avons le sang de la paix qui coule dans nos veines. C'est différent. Nous avons l'âme de la paix. Le jour où le président Macky Sall sera dans le bureau, nous ñooy toog wax moom moo tax quand on voit que le président Macky Sall il ne reçoit pas ses jeunes ça pose problème quand on voit que le président Macky Sall à ses côtés on voit ku mel ni xarañ xam nga xam nga sniper du président la on voit récemment Ousa man je peux je peux vous dire vous garantir y avait même des ministres qui ne voyaient pas le président de la République. Hmm. C'est-à-dire que les gens le voient en conseil et après dire le. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ministres yooyu tamit dañu war a am fulla am courage gëm yàlla bés bu ñu ba mu toog président nekk lii moo lii lii laa gëm lii Sénégal soxla lii laa war a def mais am na ministres yoo xam ne tey suñu toogee président dañuy couper. ay responsable yu mais est ce que sañ nañ ko tamit. ko la abali bët nag fu ko neex ngay xool. la moo waral loolu du question fu mu abal bët de. Hmm. quand on était dans l'opposition beaucoup d' entre eux président moo doon fay seen loyer. Hmm. président moo doon joxe ñooñu salaire. président da leen jox des voitures de fonction man René Pierre. muy Thiadia bi muy Ibrahima muy keneen Thiadia bi pour parler de lui perte na ñaari ñoom oto deux lakk na benn bi dafa toog siège APR otom lakk beneen bi ay nit soxla oto war a dem ay département Podor. amuñu oto bi ñu dem parce que moom dafa jógee France man man keroog dafa nekk histoire dama un jeune sénégalais amul sax quarante cinq ans mu bàyyi France jël oto door oto ba Sénégal pour jàppale Macky Sall est-ce que président xam na loolu. peut être ñaari oto yaakaaroon ne xamu ko. mais xamu ko ko xam parce que le président il gère le pays parce que y' a énormément de problèmes ñun sax bëgg ñu sax moom mu xam lan la waa APR di def ñun ñu bëgg ku mu jox nombre qui est dans un département c' est à lui de gérer noonu. lu tax ne fu ñu abal bët ñun Macky Sall ab ñu bët hmm. man de René Pierre am naa sañ-sañ bés moo toogee président Macky Sall mun naa ko wax la moo naqari te ñu ma ñuy àndal ñoom tamit am ni sañ-sañ mais président am na parce que moo tax àndu nawle àndu gor la président suñu grand frère la suñu camarade de parti la tey soo nekkee président ñu nekk parti mais su nekkee ñu ni toog gis loo xam ne loo xam ne day war a yàq parti bi tey su ma demee siège APR waxtaan damay kontaan c'est au est-ce que vous pensez réellement que le président l'a fait pour que APR deux ans trois ans APR daanu suuf non le président l'a fait pour d'autres générations pour que ñun ëllëg suñu génération mu continuer à travailler à servir ce pays man dama gëm dans ce pays un jour viendra il faudrait qu'il y ait deux grands partis politiques au Sénégal comme le font les États-Unis mooy parti républicain parti démocrate parce qu'il y a trop de partis télécentres ces là ils sont là pour le peuple ils sont pour le poche y a des opposants le matin ils attaquent le président Macky Sall le soir ils sont au mais réew mi moom defe naa ne opposants yi bu ñu amatee ñaar lay doon parce que nag genn wàll gi yëpp daanaka kenn xamul ci euh, xaw ma nu ñu koy waxee kenn xamul ñu ngi ci opposition kenn xamul ñu ngi ci pouvoir euh, kenn ki nag sax moom dem na rejoindre leen leen mais problème bi mooy est-ce que quand même seen collectif bi am na doole tamit est-ce que am ngeen ay nit yoo xam ne adhéré nañ ci comme sànq ni ñu koy waxee am na ñoo xam ne dañoo dañoo ragal bëgguñu feeñ. réellement ñoo nekk si seen poli seen seen collectif bi ak qui est derrière vous aussi. dama ne ku ragal na nga daw collectif muy ñëw dal seen kaw loolu pourquoi je le dis ku ragal du ànd ak ñun ñu li def nii nëbbuñu ko on le fait. mais est-ce que dina leen jig tam. non non soxna si di sama affaire laa la wax de lu ayatollah Khomeini waxoon Shah d'Iran en 1979 mu ne que ces enfants là ces enfants là ñu nekk man parce que Khomeini dafa dem dans la ville de Qom. mu xam ne pour gagner il faut mu jaar si ndaw yi mu jaar si ndaw yi ba ni kay yi mu ne que ñii ils seront libres ou deviendront des martyrs soo xoolee islaam ba prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam àdduna aw Aboubacar dafa ne képp ku gëmoon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam xam nañ ko jënd na àdduna mais islam day continuer tey lu am islaam lu am ci lu am si christianité mais loolu c'est des fol wax c'est des valeurs loolu ñu war a instaurer dans les partis politiques mais malheureusement dans les partis politiques ce qui les intéresse soo xoolee grand que ce soit dans le parti au pouvoir que ce soit dans l'opposition c'est pas le peuple ñu bari si ñoom. waaw mais loolu laa lay laaj nag peuple bi ñan ñoo tax war a taxaw pour défendre leen su fekkee ne opposition amatu fi pouvoir bi talu leen ñan ñoo war a défendre peuple sénégalais. loolu moo tax ñun suñu collectif bi nous lançons un appel aux jeunes de l'opposition de venir adhérer à ce Parce que un paradoxe. Non, c'est pas un paradoxe. Vous savez pourquoi Si aujourd'hui le président Macky Sall se permet de travailler avec Idriss Seck, si aujourd'hui le président Macky Sall se permet de travailler avec Omar Sarr, si aujourd'hui le président Macky se permet de travailler avec d'autres cela veut dire que tout est permis dans ce pays. Je lance un appel à Guy Marissagna de venir travailler avec nous dans ce collectif pour qu'on réfléchisse ensemble pour des solutions pour ce pays. Ce pays est important. Ce entre d'autres mains. Parce qu'on sait très bien, on a des pétrole, on a yàlla moo xam kuy dee ils sont entre soixante quinze ans soixante dix ans est ce que kenn waxu sax du ñu bëgg a jaay dëkk bi saax saaxee ko ñu si avenir yàqu. ñan la ñooñu. mais du ma tudd ay de. ah dëgg naa sax allié la xanaa. non du ma nee allié de parce que dafa am des gens tapis dans l'ombre sa à dire que tey am ñu am ay agenda caché. moo tax ces gens là nous allons les défier. mais ñan la ñan parce que nag xam nga nag René il faut nga toj yàq bi nag. non non soxna si. yow comme boobu ba léegi yaa ngi wax. quand même soxna xam yow. xam naa la bi may bi benn yoon la laa fi ñëw. Mm. xam ne jàng naa la. xam nga nit ma invité. damay xool yaay kan xam naa si liggéey xarañ na si trop. waaw parce que yow ku lay dégg ne wax rek lii ngay def ab passion. mais tamit na mun ma nangul man lu may wax ni passion la fii lay jógee. tey lii gëm-gëm la lii ñun tey ah suñ combat yëpp lan la du poste tey ma gis président Macky Sall jox loxo président le parti va mal jeex mais loolu. ma mission. mais moom xam na ne le parti va mal. xamu ko. ah bon mënu ko xam. Abdou Diouf fii la toog nekk. kon réunion d'urgence yi muy woote nag mais réunion d'urgence yooyu si ña ñooy wax. est-ce que mais lan moo tax léegi réunion d'urgence yooyu am si ay palais pourquoi on le filme pas ça doit être des réunions télévisées su nekkee peuple moo tax a wax on demande au président de la République réunion secrétaire nationale du parti yenn réunion yi que ce soit télévisé. comme le faisait Thomas Sankara. mais yéen amu leen droit sa woote. non non réunion parti nag biir palais wax oh, loolu xam loolu. dafa doon benn ni koy waxatee benn tradition dans ce pays. Hmm. moo tax ñun suñu génération. suñu génération loolu bés bi ñu ñëwee loolu day deñ et ça à présent ñoo war a instaurer ça dans la tête des sénégalais c'est-à-dire tey soo xoolee Thomas Sankara dafa bàyyi ay 4-4 bàyyi lépp dawal ay Renault day jouer basket day jouer football. Angleterre bi ma jógee Boris Johnson le premier ministre je le voyais dans la rue nan kafe ak man toog waxtaan ak man Ken Livingstone Ken Livingstone l'ancien maire de Londres kooku moom moo xeex pendant dix ans pour mu am la plus grande statue de Nelson Mandela en Angleterre te soo jëlee ministre ministres yi ñu nommé. au début xalaatoo ko fi au début dañu lekk yow dañu lekk yow caaf. am nañu groupe parcelle soo parcelle am na groupe bu tudd groupe Pinton hmm. dañu lekk yow caaf naan yow ataaya. Mais si vous êtes ministre, vous avez l'impression que ces gens-là sont sortis de la cuisse de Jupiter. Ça veut dire que. Mais ils sont pères. Pouvoir bi day def nii nit dëngulu di def nii mocc ay tuñ alors que ñoom l'être humain est inquiet c'est des gens faits pour la mort cest à war a rappeler quand arrive le à la personne c'est là qu'on va de Dieu c'est-à-dire que ces gens-là doivent se rappeler avant eux il y avait des militants des comités qui le président Macky a un problème parce que président Macky Sall est-ce que mos na dégg Macky Sall président Macky Sall dafa rencontrer sa jeunesse sans les responsables. tey la loolu tey la waroon def. mais loolu da neexul bis bu ko bëggee bu ko bëggee xam ne jeunesse am bii mere nañ ko dina leen woo wax ak ñoom. non loo xam ne mais su fekkee ne amul jotu jeunesse parce que jàpp ne ne xëy na amaloo leen ko njëriñ lu bëri et que li mu bëgg. mu ngi koy am ci opposition bi est-ce que tam du dem voir ailleurs aussi. soxna si sama sama âge man passé na passé na plus de trente ans jamono Abdou Diouf loo toog mu ne woon dëkk bi am na pour ndax meew cinquante franc. <laughs> ak ñi yee kaaraat. ñi yee man yaakaar naa tey lu ma xamal Macky Sall soo ko gisee sax ma dam koy yërëm. Hmm. mais tamit ni nga koy wax moom nekk nekk tey APR tey APR dafa corona. mais nan ngeen di def mu dégg. non dama ne soxna si APR tey dafa corona. <laughs> tey tey tey vaccin bi moom moo ko yore. ñu hmm. muy piqûre ses ailes yi Omar Sarr ba Idrissa Seck am sañ-sañ ne ànd ak soow mais ñun nekk si touche bi man man man man ma doon footballeur bu mag keneen doon footballeur bu mag nekk Medina keneen nekk ba Gingi Neew keneen nekk ba sa ba Saraya. Hmm. kooku war a mun football muy échauffé di échauffé di échauffé di échauffé rek 2010 ñëw ba 2010 muy échauffé ba tey match bi nee na ko saa waay dama dawa tuur waroo dugg waroo dugg mais kooku day kooku day fippu loolu moo dal ndawu APR te lu ma la wax nii soo demee diaspora bi France un peu partout mais gars yi mer ñun on a été benn séminaire gars yi neen waaw góore waay te lu ma jaaxal sax am na ay maire ay pa ñoom ñoo ne sax léegi ñoom ñooy teg pour comité bi ñu suñ comité bi ñooy teg suñu xaalis bopp de. kon yéen am ngeen doole nii wala. mais soxna si gis sa doole yàlla rek moo ko yor. waaye loolu lu am solo si mm-hmm. àdduna. Abdoulaye Wade amoon na amoon na des ministres milliardaires. Mm-hmm. amoon na Cap 21 plus de cent partis politiques ma ngi daanoo. lu am solo la ma ëpp la xaalis mooy la foi soo amee foi am gëm-gëm. mais gëm ngëm yombati na ci politique. soxna si mun naa la wax benn affaire de ñun lii nii ah ñun lii nii suñu bakkan ni si teg affaire suñu doom la. Mm-hmm. suñu bébé la duñu nangu mukk ay ñoo xam ne sama xarit. tey <laughs> des fois damay am benn expression bu may neex dama ko jëlee dama ko sàccee si caajaabe mhm. mu ne sa yaay sa pap doon sëy pendant dix ans sa papa léegi dam takki beneen jabar mu indi jabar bi au lieu sa papa ut si kër bi utal sa yaay utal jabar boobu beneen néeg si néeg boobu sa yaay doon sëy dix ans mu ne sa yaay jënd si néeg bi dama si medd bi sama jabar bi moo dugg foofu loolu moo xew APR instant bi mhm. parce que président Macky Sall boo muy jëlee pouvoir bi dafa peut am na ñoo xam ne xam na leen mu xam ne ñii daal léegi xaaral ma xolaat parce que c'est normal ni day am xam nga àdduna même yàlla yàlla sax dafa am affinité yàlla moo tànn le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tànnu ma de tànnul keneen de tànnul sama maam de tànnul keneen moom la tànn président Macky tey suy tànn ñu mu affinité tàmm ña lay ñu mu nekk leen PDS jàngandoo université ñoon la xam fekkante leen mais tey su ñëwee APR. ma ne la sànq bokk nañ ci ñi ko xam loolu am si loolu day am si politique politique. intérêt la politique du intérêt de. ça la politique n'a rien avec les relations amoureuses. Hmm. je peux dire à une belle femme je t'aime elle me dit je t'aime pas. en politique je sais que qui c'est mon adversaire mais s'il est compétent je le prends mais malheureusement si de grands gaillards font des calculs si de grands gaillards font des deals au détriment du peuple au détriment des jeunes. sans pour autant ñun si parti bi école du parti amul tey su amul école du parti tey lii xew nii si lii xew nii Macky président Macky Sall def balaa muy dem war ni tàggat ndaw yi ne leen ah nous allons vers ça mais a nga marié pendant ans nga xëy un bon matin sur la table de déjeuner sa jabar bàyyi la fa papier divorce loolu moo dal APR mais mais euh, yéen jàpp leen ne quand même euh, yéen a ngi waa ngi wax sànq dil mais est-ce que du réellement njiitu réew mi dafa am lu mu bëgg moo tax mu indi ñi nga xam ne ñoo di ses anciens camarades de parti PDS ba ñu nekk teg leen ci wetam parce que bu ñu déggee sax ci kaaw Idrissa Seck quand même moom nee dafa ñëw pour jàppale euh, njiitu réew mi pour ñu redresser li nga xam ne moo di sunu économie est-ce que du tam yéen doo leen am njott bu rafet jàpp ne lool la soxna si xam tey. wala boog genre dauphinat bu ñuy préparer la pour. non tey damay au cas où troisième mandat bi doxul. damay wax benn affaire ñun de wóor nañu yàlla kenn daxuñu xeex Abdoulaye amoon na lépp si ñun am nañu dugg prison. Mm. am ñu toj seen ay xale yu ndaw. si ñun xoolal am na ñoo xam ne seen sëy tas na am ñoo xam perdi seen jabar man mii amoon naa jabar bu rafet bu ma jëlee Angleterre métis bu rafet sénégalais fi bëggul xees. mu ñëw Sénégal dafa ñoo ñu fi trois fois quatre fois mais mu xool boo xool xool ma ne ko viens rester mun ma rester ici alors que toi yow munoo munoo munoo munoo dara ah amuloo sa amuloo sa loo def avec tout le combat que tu as mené en Angleterre xam moom nasaraan la ni ñu xalaatee. Mm-hmm. mu ne je comprends pas pourquoi les gens en Afrique sont comme ça man ils sont comment mun ma yow fii amul reconnaissance ma ne ko non le temps le temps le temps le temps moo tax. même yàlla nee na dans le Coran l'empressement n'est que l'instigateur du diable maintenant le temps dafa ñëw tey président Macky Sall mu bàyyi responsable yooyu mu jëlaat comité yi nekkoon fii les authentiques mu xool ñoo xam ne war ni mu yore réew bi ñun tey su ñun su dee jàng bi am nañ ko su dee compétence am nañ ko su dee fit am nañ ko su dee politique mun nañ ko. am mais lu tax jëlu leen su fekkee ne vous êtes si compétent que ça. lan moo tax ba mënu leen parce que nag quand même du ñàkk ci biir parti bi ñoo xam ne ah, ay seeni ndijaay lañ wala seeni bàjjo comme ni muy demee pour que ñu xam ne au moins. soxna si nit jege na. mun naa ne yow je sais pas comment vous êtes venu à Afia FM peut-être jàng na xam na koo xam mu wax diw directeur bi essayul femme bi ay na tey si parti bi suñu su ñooñu amoon honnêteté intellectuelle ni gis un jeune di liggéey ni ne ah kii il est bon. xaaral ma jël ko mais qu'est-ce qu'ils vont penser kii ma ko de la République mu dootuma tekki nit il faut avoir de la générosité dans les actes malheureusement. kon yow mosoo am benn responsabilité benn fonction ci biir part à aw ma benn fonction loolu laa fonction. Hmm. mosoo liggéey biir à ak yooyu. liggéey biir enfin pas APR mais biir. mag njiitu réew mi jox la quand même benn poste wala boog benn. responsabilité soxna naa la nee naa la président Macky Sall amatul jeune APR. ministre ñoom ñoo am ay jeunes APR président Macky Sall amoon na ay jeunes bu ne opposition ñu koy moo tax mu ne président Macky Sall xamu ndax yaa may dégg. xamu ndax renseignement généraux yi ñoo may dégg. dina la dégg fii lu fi wax jot na ko. président. Mhm. maa lay ñaan yaa xayti yoo xam nga bëggoo parti bi avancé tey ndaw yi nekk fii rencontre waa Médina sans les responsables rencontre waa Fouta sans les responsables rencontre waa Podor sans responsable na xool. jëlal compétence yi ñu xool ñi li ñuy def ñu xool ku nekk évaluer ko tey sooy dem guerre da nga war am arme mais ñun tey. mais est-ce que doyalul tamit. soxna si ma xoolal benn affaire. Uh-huh. je je le dis avec toute avec toute l'honnêteté intellectuelle. Mm-hmm. une fois il m'est arrivé d'aller dans un débat à la télé. Mm-hmm. mais débat waa PASTEF. le chargé à l'organisation. ba ñu pare mënuma grand j'aime bien ton style parce que vous êtes franc mënuma grand vous êtes véhiculé ma ne ko non non mu ne kaa mu la. na xam ne réew bi do na xam ne ñu suñu parti doxul su demee ba parti au pouvoir man ma dem débat opposant di ma yóbbaale ba fu ma dëkk jamono Abdoulaye c'était impensable Abdoulaye loo ko munti wax wax wax wax il est généreux tey parti bi bay nekk au pouvoir est-ce que mu na ma compter ñaata jeunes jeunes étudiants ñoo dem extérieur pour jàng pour am xam-xam ñëwaat on devait préparer ces jeunes la tey 2012 ba ñu jëlee pouvoir suñu jëleen ay centaines de jeunes yóbbu leen ni jàngi fii am na école de formation am na CDS man CDS laa jógee centre d'études diplomatiques stratégiques au passage damay nuyu monsieur Diallo. problème la. Euh, ñu fàttale rek auditeurs yi ne yéen a ngi déglu seen émission dialogue social tey ñu dalal René Pierre Yéhoume nekk président bu mouvement pour la défense de la République responsable APR Dakar Plateau euh, tey jii ñuy waxtaanee li nga xam ne moo soxal mbir mi euh, René bu ñu desaatee ci waxtaan ba tey. Euh, donc fi mu ne nii jàpp nañ ne euh, njiitu réew mi daal dafa trahir li nga xam ne moo di jeunesse am. non balaa may dugg ci loolu damay wax tout à lu fi xew jaaxal na ma trop. parce que c'est la première fois ma dem émission. <laughs> c'est la première fois ma dem émission. Mhm. ma gis lu mel ni nii. damay lance un message à ces la xam nga ñoo ko def ils peuvent couper l'émission mais ils peuvent jamais couper mon esprit révolutionnaire. Mhm. ñun li ñuy gëm. réew bi mooy ñor. ni boo ko APR boo ko beneen parti li ñuy war a wax ñu koy wax. tout à l'heure vous avez dit est-ce que njiitu réew bi dafa trahir sa jeunesse. Mm-hmm. ma ne beaucoup de ministres ñoo xam ne moom moo leen fal ñoom ñoo trahir la jeunesse te ministres yooyu suñu trahir la jeunesse. ñu ni yaakaar responsable bu gën a mag bi moom la. Mm-hmm. parce que moom la moo tax mu ñuy wax responsable bu gën a mag bi moom la. Mm-hmm. ñu demee si suñu demee si suñu demee si si biir parti politique. ni gis ministres yooyu ay responsable yi ñu joxoon nombre seen liggéey. ñooñu defuñu seen liggéey. war mhm. jàppale war a nekk croix de transmission entre le président et sa jeunesse du parti entre le président et la jeunesse du Sénégal c'est-à-dire que ces gens-là devraient au moins conseiller. donner des solutions au président de la République. Mhm. tey soo ñëwee si tey soo ñëwee si yenn wàll yu mel ni wàllu immigration clandestine na xam ne day doy war tey pandémie bi comment on peut faire plus de 1000 milliards si pandémie bi alors que immigration clandestine mu moor pandémie tey toute les structures de la jeunesse soo demee tey ministère de la jeunesse. ministère de la jeunesse amul xaalis. man dama leen yërëm tey ANPEJ amul xaalis tey Prodac amul xaalis tey Prodac day def ay terres aménagées plus de seize hectares de tey tey Prodac soo leen joxoon mu mel ni seize milliards. mais yaakaar naa jeunes yu bari ñu mën a mun liggéey. Mm-hmm. mais lan nga jàppee silence bi quand même ci Barça Barça pour aborder point boobu parce que nag gis nañ comme ni nga ko waxee plus de mën nañ sax ne 1000 morts parce que nag am na ay mo euh, cas yoo xam ne kenn gisu leen euh, réer nañu pratiquement depuis des des mois. ñu gis ne amul lenn loo xam ne njiitu réew mi def na ko ci walla benn autorité sax bu génn wax ci massawu sax way jur yi nga xam ñàkk nañ ci seen doom mais jéem a conscientiser au moins euh, li nga xam ne moo di. jeunesse am lu dul euh, créer benn affaire boo xam ne dane xaw ma genre conseil la bu ñu war a teg pour mën a euh, dans recaser waat peut yeneen futurs alliés. non pour dire vrai ah man du ma wax du ma ñëw fii di këpp suuf ci ceeb bi. Hmm. lu may wax rek j'ai au Sénégal et l'extérieur comme chef de cabinet du ministre Souleymane Diop. Hmm. mini man ministre bi ñoo na dem aéroport. Hmm. des fois ñu taxaw vingt une heures ba parce que ñu ne des fois avion bi buy rapatrier ay sénégalais mu ngi ñëw à dafaa ngi toog 21 ba 4 du matin def nañu ko maintes fois maintes fois ak ministre Souleymane Diop. ñu rapatrié ay sénégal non ay Sénégalais yi nekk na Libye Centrafrique Libye mm. ñu rapatrié leen. Mm. ñu avion lay ñëw ñu ñëw avion bi ñëw heure boobu di xool di xaar ba 4 du matin def nañu ko à maintes reprises l' état a mis énormément d' argent plus de 2 milliards. qui ne faisait pas partie du budget de l'État loolu président def na ko président teg na ay jeeg yu bare si loolu mais man foo waxee rek tey Sénégal yooyu bu ñu ñëwee tey ñuy rapatrier indi leen Sénégal mais ñooñu soo leen jàppul utal leen liggéey soo leen canaliser wul soo leen identifier wul mais ces gens là ils vont retourner. ce sont ces mêmes personnes ñooy dem deewaat on se rappelle de Lampedusa en 2015 c'est-à-dire que selon les chiffres de l'OMS plus de 880 Sénégalais gaañu na woon si loolu. mais ñooñu tey il faut aller vers les one de départ. mais mais DER bi kon lan lay njëriñ ak yeneen structures yi ñu fi teg pour jeunes yi xam nga nag bu fekkee dañuy créer pour créer jël ay man sax bizarrement temps yi la ñu gis DER bi commencé di def ay sorties dem ci région yi di financer à hauteur de cent millions alors que période bi mu fi nekkee woon yëpp gisuñu ñu financer benn jeune jeunes yi migrants de retour yi ngay wax dañ leen di jox financement dañuy déposer seen projet kenn du leen financer donc DER bi xaar dañ ko fi dencoon pour xaar en cas euh, situation catastrophique ñu doog a génnee ko pari man sama akul sama akul ak talaa laay wax lu ma gëm mooy dama ko gëm sa à dire que tey surtout jeunesse yooyu noonu man dama dama dafa dafa jot président dugal si ay milliards yu bare. tey surtout jeunesse bi loo xarañ xarañ xarañ su dee wàllu compétence y a de bons techniciens qui travaillent au niveau du ministère de la jeunesse et dans ces structures là mais on a un problème de moyens tey tout cet argent là qui sert à mettre au niveau de la pandémie là. Mm-hmm. mais pandémie dee yi barewul. xeebu mu xeebu xeebu mu pandémie lu l'état def je salue ce que le ministre la santé a fait avec les techniciens avec l'expertise locale les menuisiers les mutuelle wax menuisiers les les les tailleurs. Mm. ils ont fait un travail colossal mais néanmoins c'est-à-dire que tous les loolu cest à am une situation de crise internationale dans tous les pays au monde ñëpp a confronté à des problèmes liés à l'emploi des jeunes mais néanmoins européens ils mettent énormément d'argent sur les secteurs dama ne les de jeunesse. tey loo jàng jàng jàng jàng soo amul yéen les moyens de votre politique est-ce que vous avez réussi cette mission moo tax aujourd'hui on demande au président de faire l'évaluation de toutes ces structures de jeunesse les renforcer jox leen xaalis tey dafa am ñu woowee politique d'interventionniste comme lu dee di def cest à que tey c'est bien na jox nit financer ko mais soo ko financer qu'est-ce qu'il va faire moo tax l'employabilité moo tax ministère de la formation professionnelle nekk fii tey il faut changer de méthode il faut aller il faut aller des endroits dafa des endroits yoo xam ne tey da ngay jàppale nit yi mooy yan endroit tey lu am géejawaay lu am caaroy lu am plateau jeunes yi réalité yi bo yi bokkul réalité ñoo bokkul te il faut na ko yi yooyu lan mooy seen réalité sociologique tey na ko jeunes yooyu ban mode d' emploi na pour liggéey ak ñoom mais soo jigée de ne lii ñoo leen fii ñoo leen fii loolu c' est pas bon mais DER bi laa bëgg a xam lan mooy njëriñam mais du man cest à au niveau de la DER je pas au niveau de la DER man loolu moom lu mun wax rek mooy dama gis DER war na revoir critère de sélection tamit xool jamono yi gis leen ils sont un peu partout ils sont en train de ils ont donné ils ont donné des financements à des jeunes. def nañ ko ils mais ndax ko woon bàyyi ba immigration clandestine bi tar ñuy doog a jóg di génne xaalis bi. non DER. cest à après la mort très honnêtement très honnêtement doon naa gis ñuy wax DER jox na ay financement DER sax jox na jox na groupe Y'en a am na ku ma jox. ba saa fi ak yi waa doomu Cissé yi moom jotoon nañ leen. du ma cest man du ma ah, ko wax na ko wax mais loolu loree monsieur dama gis dans la presse. DER jox na financement groupe Y'en a marre. waaw mais doomi ah. Cissé Lo itam nee nañ bénéficié wu nañ financement wu 45 millions. loolu ñëpp a ngi koy dégg au même moment. des jeunes yoo xam ne ñu ngi fii des migrants de retour ay jeunes yoo xam ñu ngi ñu ngi am seen. projet yoo xam c'est bancable kenn financé wu leen. soxna si man nee naa sànq critère de sélection mais lu may wax rek. mais am nga ci xalaat il faut donner il faut mm. donner aux Sénégalais ñoom ñëpp ñu am chance égale. Mm. ñu am attribution à des financements. Mm. tey dama gëm les Sénégalais ils son d'égale dignité tey amul amul le Sénégalais. ah de la haute classe à le sénégalais de la de la moyenne classe. te un sénégalais dafa am loolu. Mm-hmm. Mhm. Euh, di euh, fàttali rek auditeurs na ñu ngi déglu dialogue social tey ñu dalal René Pierre Yéhoume di président wu MODER euh, tey jii boo doon def njàngat ci li nga xam ne moo di remaniement bi waaw boo dee def njàngat ci remaniement bi tey jii lan nga ñu mën a wax. xam remaniement loolu dafa nekk du domaine du président de la République remaniement dafa nekk du domaine du président de la République tey le président de la République. moom mooy xool comment il fait pour conforter sa majorité am na ñu fi nekk doon ay ministre après en un moment donné mu jël ñeneen tabb leen teg leen fii te loolu soo defee rek mooy que moom moo xam lu tax mu def ko peut-être ñooñu équipe boobu am na léegi beneen faas lay dem parce que équipe bu ñëw day am phase 1 am phase de am phase 3 et dans cette phase là yaakaar naa tey le président am na lu mu bëgg si si ñooñu mooy jéem a xool comment il va fair pour tabb leen pour ñu liggéey liggéey moom mu soxla parce que bu fat tamit moom mooy définir les politiques du gouvernement du Sénégal tey il il met en place une équipe qui est apte à gérer qui doit faire son travail loolu moo tax tey affaire remaniement man je rentrerai pas dans ce sujet parce que remaniement du man maay président de la République il a fait ses choix moo jël ay nit aujourd'hui lu am solo ces gens-là doivent faire preuve d'exactitude. waaw mais en tant que membre du parti quand même am nga ci xalaat lan nga jàpp ne euh, ñii ñu jël parce que nag ñi ñu bëri dañu foogoon ne jeunesse bi dina ci am wàll bu am solo mais apparemment c'est le contraire. non xam tey ñu li ñuy wax président de la République am na c'est-à-dire tey jeunesse bi. su su su nekk c'est-à-dire dama cest à lu may wax rek mooy le contrat boo xam ne contrat bi contrat le président Macky Sall a signé à l'endroit de sa jeunesse. Hmm. dama bëgg mu gën a dolli contrat mu gën a fëddali contrat boobu à l'endroit de sa jeunesse et surtout la jeunesse du Sénégal. c'est-à-dire je ne parle même pas de la jeunesse de l'APR mais à l'endroit de la jeunesse du Sénégal. Hmm. tey yenn problème yenn soo si waxtaan kaay yi teg ataaya da dem feneen gars yi ngi si biti. loi dafa am loisiveté tey ñooñu il faut ñu xool ni leen di jàppale pour que dëkk ñu mun doon ay des acteurs tey y a des jeunes. qui préfèrent mourir si ndox bi se suicider silencieusement que de rester au Sénégal de vivre dans le déshonneur devant les leurs parce que ñu am seen dignité mais loolu aussi c'est pas encouragé c'est-à-dire que nit dañ koy mettre dans des conditions on sait que l'État ne peut pas donner du travail à chaque Sénégalais l'État doit créer les conditions qui permettent un Sénégalais d'avoir accès à travail adéquat mm. mais le président il a une équipe récemment on a def na benn exercice oral mooy léegi ministre yi gouvernement bi dañuy def ay conférence de presse. waaw lool bëggoon naa ci ñu wax ci quand même mais loolu est-ce que am na impact nga rangale neuf ministres yoo xam ne ñoom ñëppay waxandoo apparemment euh, kan lañ ciy déglu la preuve boo boo laajee sénégalais sax lan lañ jàpp ci li ñu wax euh, dana gisuñu ci njëriñ li. cest man nu ma gisee affaire bi am na importance mais peut-être format bi moo des. Hmm. tey mënoo jël neuf ministres dajal leen ñu wax. te journaliste da ngay da jël benn ministre c'est-à-dire day da question orale na jël benn ministre. teg ko mu wax ak askan wi mu mu toog ay journa journaliste di ko poser ay question te c'est-à-dire que ministre mënu ñëw toog tamit di wax ma di wax di wax du matin au soir le ministre on doit l'évaluer te le journaliste am na information xarañ na y a des journalistes d'investigation ñoom ñoo war a togg ministre bi di ko poser ay questions mais si loolu noonu on peut savoir kii liggéey bi xam na ko war a xamu ko. est-ce que ces techniciens travaillent parce que le ministre derrière le ministre mais il y a toute une équipe mais quand on prend neuf ministres ni rangal leen ñu wax. sañse bi da lañ gënoon a gis. que mais xam loolu loolu loolu communication bi sax du am fluidité. Mhm. c'est-à-dire la communication elle doit être lisse. comme la communication. mais yow nan nga ko jàngatee est-ce que njiitu réew mi il rendu compte que ne il ne communique euh, pas avec assez avec sa population wala voilà, euh, le fait que opposition bi am monopole euh, réseaux sociaux yi télévision yi débat yi moo tax mu bëgg quand même euh, imposer sa communication surtout gouvernementale. non je ne le pense pas man man je dis il n'est jamais trop tard de bien faire mm-hmm. man action je l'ai salué. parce qu'il est venu à un moment opportun. La population avait besoin d'informations. Et je disais que la communication a trois phases. Il y a la dialectique, il y a la rhétorique et il y a la polémique. Mais dans ce pays, malheureusement, on fait que de la polémique. C'est-à-dire qu'on polémique du matin au soir. moo tax soo jëlee neuf ministres dajal leen loolu day créer polémique tey ngay jël benn ministre na ne tel jour moom mooy def lii c'est-à-dire que les gens viennent mu ànd technicien ñu la ko telle chose comment ça a été fa la liggéey bi toll ni xam mais c'est important tey c'est-à-dire que ñii ils sont là gens là ces gens là ils sont là pour le peuple ma loolu laa gëm c'est-à-dire ñii nekkuñu fi tey nekkuñu fi tey parce que seen xam na ay a nga sol costume bu rafet a nga sol ndoket bu rafet ils sont là pour le Sénégal chacun d'entre nous a un itinéraire particulier et particularisé mooy servir et non se servir mm. tey ils ont l'obligation de rendre au aux ils ont une obligation de clarification d'ailleurs j'en profite pour dire même à la déclaration de patrimoine mais sa doit être publié comme ni ñu defee en France comme ni ñu defee en Norvège Sénégal rek laa gis déclaration de patrimoine ki ñoo xam ne tax ñu koy nëbb mais c'est normal cest à tey mënoo ne tey man attends écoutez c'est-à-dire que il faut il faut qu'on soit sérieux quand même mm-hmm. mu ñu nekk dans un pays ne ne ñi ñooy ñi ñooy yor ñi ñooy yore département yi alors que tey war naa xam René Pierre bu muy dugg nekk ministre. ñaata la lan la René Pierre amoon. Hmm. lan la René Pierre toll lan la am mais malheureusement amul mais c'est-à-dire que aujourd'hui ces gens là aussi ministres yooyu tamit ñoom ñoo war a am tamit une honnêteté intellectuelle de rendre de rendre compte. Hmm. tey am na ñoo xam ne du ma tudd ay tur nee nañu man da ñoo ñoo def seen déclaration de patrimoine ne am naa lii tant tant tant. Hmm. y en a qui l'ont dit ouvertement à la télé. y en a qui l'ont les temps. ni xam ne le Sénégal n'a pas besoin di polémiquer le Sénégal a besoin que tous ses fils se regroupent autour de l'essentiel pour travailler pour sortir de ce pays de ses problèmes mm. parce que aujourd'hui il y a la pandémie on nous parle de la deuxième vague waaw ñu ngi wax deuxième parce il faut qu'on s'unisse il faut qu'on s'unisse mm-hmm. mais il faut qu'on s'unisse non pas dans la division mais dans l'union que Sénégalais yi xam ne képp ku yore deniers publics il doit travailler il a l'obligation de rendre compte tey dafa am trois choses mm. le le corrupteur et le peuple mm. et tout se fait au détriment du peuple absolument c'est pas normal mm-hmm. euh, mais tey bu ñu waxee ci gouvernement bi xëy na am nga ci amoo ci xalaat gu bëri mais mentor yi nga xam ne éliminer nañ leen quand même ci échiquier bi da nga koy jàngatee non man xam baron ñoo doon baron parti bi ñu xëy évincé leen ñooñu. soxna soxna Fatou man gisuma baron APR de. ah ñooy ay baron lañu gisuma gisuma mentor de. ku def huit ans ci gouvernement kay baron. soxna si ñu bëri suñu amuñu bàjjen nijaay moo tax ñu toll suñu toll léegi nii. Hmm. tey su ma amoon bàjjen soo ñëwee si ëtt soo ñëwee si ëttu lëbu da ngay am bàjjen war na fa nijaay pour am kaddu. Hmm. mais ñun lu ñu gëm mooy le combat y a que le combat qui peut man combat laa gëm. am na ñoo xam ne tey yàlla may na leen ñu ngi sàmm ñu ngi sàmm mbéyaan ñu ñëw tagg la ne yaa fi gën yaa fi gën sëriñ yaa fi sa maam moo fi gën sa baay moo fi gën ñu jox leen ay poste gëm ñu loolu ñun li ñu gëm ñàkk ñu gëm mooy c'est même fait c'est c'est le fondement du mouridisme mooy ñàkk juriñu ñu loolu ñu gëm c'est-à-dire que on est là pour travailler on est. on pour mériter mais ñi ñu ñooñu lan lan ngay nan ngay analyser loolu est-ce que du seen ambition moo leen emporté wala. non man jusqu'à présent. dégguma kenn ñoo ñu éversé ñu. bëri ah, waxuñu waaye mi moom. quand même wax na mais xam soxna si am na loo xam ne mën naa nit lu muy xalaat lu ma fekkeewul lu ma déggul. mënuma ma si prononcé mais yow en tant que militant APR lan nga jàngatee loolu est-ce que du du rumeur yi ñu doon wax ne ñii dañu bëgg ñu commencé defar seen mbiru bopp pour nekk d'éventuel euh, candidat ci deux mille vingt 2024 di préparer seen bopp moo tax ñu ñu rumeur yooyu yàgg na ñu xëy suba ñu wàccee leen ñoom ñëpp est-ce que du loolu ndax mi Mimi au moins moom def na déclaration gis nañ ne xeer xeer yi ngeen di sànnanteeg ñoom mais ñi si des moom dañu noppi moom laa lay laaj. soxna si man je me fie jamais aux rumeurs. Parce que dans ce monde-là, aujourd'hui, on est en train de structurer le mensonge. Mmh. Le mensonge est si bien organisé ah. qu'aujourd'hui, le mensonge, le, le, mensonge a pris le dessus sur la vérité. Alors, c'est très important. Ça que aujourd'hui, je ne me retrouve plus dans ce Sénégal. Ce Sénégal que je voyais ce Sénégal que j'aimais. J'entendais nos ancêtres, nos grands-parents qui se battaient, pour des causes nobles, mm -hmm. de valeur. Lola Mais il faut qu'aujourd'hui, nous, xale yu ndaw yu nekk école maternelle ñu leen war jàngal lan mooy dignité. Mhm. lan mooy éthique lan mooy morale pour que ñoom ëllëg li mu nekk loolu di ko di ànd ak moom di ko dox di ko wax di ko jëf tey tous ces gens que vous voyez la la plupart du temps ils sont pas intéressés par le peuple. Mm. ils sont pas intéressés par tey ñoo soo jëlee tey pourquoi yéen journalistes yi vous n'allez pas dans les communes vous faites l'évaluation de chaque ministre. c'est-à-dire que là c'est-à-dire que commune non mais attends y a, y a un autre faire mooy lan tey René Pierre su nekkee ministre il habite à Dakar Plateau vous allez à Dakar Plateau vous n'allez pas chez René Pierre vous demandez dans les maisons vous rentrez vous faites votre enquête même su nekkul télé mais là vous verrez est-ce mu ngi liggéey est-ce proche parce que quelqu'un il doit être proche de la population tey population soo xamul seen mbëbët. mais loolu kay ñun ñi xam ni chaque jour ñoom la ni rajo communautaire sax loolu mooy seen liggéey. waaye problème bi mooy euh, bu ñu la falee poste de responsabilité ca ngay disparaître ca gox ba ba élection am wala nga war a mobiliser loolu moom ñëpp xam nañ ko. ci politique mais loolu loolu su amee. cela cela veut dire que les peuples ont les ministres ñoo xam ne ñoo ànd ñoom. tous les peuples ont les ont les ont les, mêmes gouvernements ñu leen diriger parce que tey. mais est-ce que du li dal peuple moo leen dal yéen. jeunesse APR yéen a ngi nii fexe ba jàppale Macky Sall ba mu nekk président fi mu ne ni pour ngeen teg ko bët c'est tout un problème. soxna si je pense que le président de la République su déggee temps yi suñu wax yëpp du ma ne dafa ñu war a jël en audience de mais dafa war a solutionner daar daar. Mm. parce que ñun nous aimons ce parti. on n'a pas d'autre parti. tant que duñ leen tam damay ragal ñu koy dàq leen. koy dàq mooy kan ah. <laughs> mooy koo xam ne dafa am agenda caché. mooy koo xam ne gëmul APR. mais ñun soo déggee suñu wax yëpp waxu ni pour yàq ñun tey suñuy pas-pas suñuy temps suñu énergie c'est l'APR. c'est-à-dire que ñun APR yu ah, nooyee. mais dàq nañ fi nit pour moins que ça am na yenn yaa ngi yaa ngi koy créé collectif am na ku fi créé woon manko APR ñu dàq. xam yooyu soxna si xam ay soxna ay manko. ah xam yooyu noonu moom. ay ay kii la rek yooyu moom soo déggee loolu am. Mm. yu mel ni comme genre yooyu noonu ñun suñu bos ñun on est dans l'APR ay jeunes ni on n'a jamais occupé de grandes fonctions dans ce pays. Mm. mais dans ce dans notre parti le grade le plus élevé c'est le grade de militant. Mm. te le militant, nous sommes tous dégal dignité. Mmh. C'est la raison pour laquelle nous avons le droit, à un moment donné, de constater des choses qui se passent dans ce parti. Nous savons direction de moo baaxul que aujourd'hui le président camarade Macky Sall war na revenir au aux fondamentaux yoo xam ne les fonds baptismaux ñoo créé APR mooy yoonu yokkute bi. Mm. parce que suñu demee tamit ba ñoo toll nii ni tey aujourd'hui mu ngi si anniversaire parti kenn waxul aujourd'hui on doit on doit célébrer en pompe mais on doit célébrer l'anniversaire en réflexion. mooy lan tey aujourd'hui lu xew nii yan jàngat la da nga war a am tey aujourd'hui on a vu que le président moom rek mooy def déclaration mais un parti moo tax moo tax en je profite pour dire que aux jeunes politiques nous devons travailler pour que ñun suñu parti politique yi mu am une démocratie des idées que su amee anniversaire de nos de nos partis que les gens dans leur commune dans leur localité chacun célèbre l'anniversaire à sa façon à sa manière. waaw ah, mais duñu jeexal quand te laa laajuñu la quand même ñi ñi ñuy bëri di interpréter quand même euh, xëy na liñ la jox joxul yenn poste de responsabilité yi moo tax ngay sànni xeer parce que nag gis nañ ne des fois nga sànni xeer après benn moment kenn du la déggati mais est-ce que quand yow du liñ lay jiiñ bon nga baal ma ci kàddu gi ne maître chanteur nga buñ la joxulee rek Euh, li nga xam ne moo di euh, collectif. soxna si ku bàyyi PDS en mille 2004 man dama am jaar-jaar dama nekk ndaw nekk PDS ma juddoo famille boo xam ne si biir këru Dakar plateau mooy rue Amadou Assane Ndoye hmm. moom ay maam yi ndoon ay nekk ay maire ku mel ni Joël Gomis ku mel ni Wagane Diouf ma bokk famille Amadou Assane Ndoye Kab doon sama maam nekk vice président assemblée nationale PRA Sénégal. Hmm. fondateur Abdoulaye Ly ma dem loon créé ma dem loon sant PDS en 98. koo xam ne Karim Wade dama doon heure heure bu ko neexee dama doon woo jamono boobu. Mm-hmm. mu nekk au puissant au plus puissant de du règne de Ablaye Wade. Mm-hmm. ku bàyyi 2004 nekk ab ndaw nga xam ne mun na am lépp ma bàyyi Angleterre bàyyi 14 ans de ma vie en Angleterre Angleterre même soo doon jaay café sax am na xaalis. ma bàyyi les le plus beaux hôtels ma bàyyi les plus beaux cafétérias ñibbi Sénégal parce que je crois à la vision du président tey ñun nous sommes pas des maîtres des actionnaires dans ce parti l'APR c'est notre bébé. la paix c'est notre titre foncier tey il faut que les gens puissent accepter les opinions contraires et diverses parce que dans un parti tey mënu am tey dictature de la pensée unique mais attends mais quand même on est en politique lan la ñun c'est une alliance la paix est tout le temps un mouvement perpétuel la paix alliance le il faut que les gens sachent que ñun aujourd'hui notre travail c'est jàppale président Macky ñun notre leader c'est le président Macky Sall amuñu beneen leader bu dul Macky Sall amul benn ministre amul benn ministre bu ñuy dàq muy keneen ku mun dicter suñu propos ku mun ni ne René war a keneen def leen li jàpp leen ni non non on le fera jamais parce que nous sommes des enfants de la paix mais tamit xale suy dox di màgg aujourd'hui l'enfant a besoin d'être reconnu mhm. tey yow sooy liggéey di liggéey soo demee sa kër sa jëkkër su dee su tëdd nelaw tëdd nelaw tôt dina ne ah amul añ amul reer mais suñu gox ñu on a on a on a la mission de gérer dans nos communes on a la mission d'être quelqu'un demain jàppalante jaamu si yàlla parce que politique soo xoolee en général jaamu jaamu yàlla kese la. Mm. loolu la woon quoi mais moom da ngeen ci fas mais xam local yi ñun suñu affaire collectif bi nii. du affaire ay local. c'est-à-dire que non bi mais sa personnellement ndax nga am ambition pour diriger sa commune. parce que na xanaa xar day weesu mbote. ce serait maladroit de de venir à la radio, de dire que j'ai une ambition pour, pour être maire. Parce que je suis dans la coalition Benabok bokk yaakaar y a des de parti, il y a le maire qui est là-bas. Le moment venu, on va discuter en interne. mais am nga yaakaar ne comme ni seen parti bi di leen mën a mës a boole njabootam gi tasaaroo yëpp ne doon benn. c'est possible si Idrissa Seck Macky Sall se retrouve pourquoi pas demain Moustapha Diakhaté se retrouvent avec le président Macky Sall pourquoi pas d'autres personnes surtout avec le président Macky mm. parce que àdduna tey dina gis ay famille ay magarak xuloo àdduna di dox ñu juboo mm. dina gis jëkkër am jabar bu fase ko deux ans après mu jëlaat ko mm. loolu am na fi mais ñoo ñaan yàlla ñun on doit revoir l'APR la copie de l'APR l'APR doit revenir à son authenticité loolu mooy le loolu mooy le cri de notre combat mm-hmm. du chantage du question que on veut ko soo ko deful dañuy xeex mais ñun APR yi am amuñu feneen foofu attends ñun foo bëgg ni dem nit ki mënul xeex nekk si naat bi ñëw ba fii na liggéey bi lépp sotti da ngay bàyyi non duñ ko def mukk mhm. c'est-à-dire que on y surtout avec la réflexion <laughs> euh, daanaka waxtu bi dab nañu xanaa ñu bàyyi la rek nga wax la mot de la fin ak euh, ban yóbbante ngay def euh, njiitu réew mi comme tey ji seen anniversaire te dégg naa mu ngi leen di dalal ci maison du parti bi waaw man damay kontaan tey rëccuwuma sama engagement bu ma def ci APR. Mm. je suis rentré dans ce pays en 2012. et euh, cela huit ans maa ngi Sénégal. Mm. lu lu ndaw rek kontaan naa sama engagement. Mm. rëccuma lu ma jàppale président Macky Sall. mais dama doon nit boo xam ne peut-être noonu ma yàlla bindee. du ma chanteur. su doon xaalis kese damay toog Londres. su naan xaalis kese du ma bàyyi Ablaye Wade mais dama gëm sama réew dama gëm la patrie. principe ngay demee dama gëm nit de nit de principe la te damay ñaan yàlla yàlla rek moo mun lool parce que nit tey damay dégg benn paa di wax balaa may dee ne ne yaa gën firaaw na mu ne déet bàyyi ba yàlla jox loolu mu jox firaaw na. Mhm. na mun xam yaay kan. moo tax damay ñaan suñu borom. Mhm. yàlla mu may ma kattan yàlla may ma xol yàlla yokk fit bi. Mhm. ba yoon bu may dugg ak sama morom. ak ndaw yëpp ni xam ne mooy yoon boo xam ne qui nous mènera vers le salut ni ne président Macky Sall joyeux anniversaire vous avez été l'homme à qui nous avons cru mm-hmm. et nous continuons à vous croire peut-être le chemin est parsemé d'embûches ce que nous avons besoin c'est de nous éclairer la voie à prendre mm. nous serons nous serons vos soldats mais néanmoins lorsqu'il s'agit de dire des choses nous le dirons Parce qu'en plus, nous pensons que la critique, elle n'est jamais désagréable. Mm. Elle fait que conduire et nous guider vers le droit. Jërëjëf, Pierre Yéoumé. Mm. jërëjëf René Pierre Yéhoume euh, di président wu MODER di mouvement pour la défense de la république nekk responsable APR bu Dakar Plateau euh, tey jii nag ñu dalaloon ko doon waxtaanee li nga xam ne moo ñeel actualité rawatina seen anniversaire bi nga xam ne mooy douze douze ans wu parti bi euh, di leen jaajëfal ci déglu bi di leen dig daje ci yeneen jëmmi jamono di wax rek ne dialogue social amaan nañu rediffuser ko dimanche incha allah bu 14h jotee di leen ñaanal fanaanuk jàmm am waaye du ñu tëj quand même sans pour autant ñu saluer euh, li nga xam ne moo di incliné wu devant la mémoire de Pape Mbouba Diop mi nga xam ne euh, il a fait le de tous les Sénégalais euh, yàlla mu wuy ju borom bi defe naa ne lu am solo la ñu ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko te yéexee ñu di ko wax rek ne yàlla na yeggalee ndawam fi nga xam ne moo di jannatul firdaws jërë ngeen jëf